ne Macky Sall Abdou Diouf ba may nekk opposant amoon na possibilité yàq ma ci lu jëm ci wàllum politique te Abdou Diouf musu ko def naam teg na ma loxo ay yoon a man Abdoulaye Wade bi ma jiite réewum Sénégal am na samay jege ñaale yoo xam ne dañoo ñëwoon na ma Abdoulaye Wade ba ma ne leen naam ñu ne ma a loxo Abdou Diouf waaye nag jamono jooje damaa lànkoon ba tëdd sa naaj wa xam ne amul lenn loo xam ne mën na ma ko koo defaral lu du daf may yàqal te a Wade ne àdduna bi noonu la bindoo président boobu man di gis am ñu nekk ci wetam ñoo xam ne ñoo koy yàqal ñoo koy jay ñoo koy wax naan ko président demal ba sa ci pandaw ka Abdoulaye Wade ne Macky Sall man daal war naa laa digal ak tolluwaayu réew mi war naa wax te waruma cee noppi moo tax ma wax la lii man daal su ma soon nga bàyyi mbir mépp mu sedd yéen a kaay gi di réew mi ko dëje ci xalima ak Assane Samb nee na Idrissa Seck yëkkati ay kàddu yoo xamante ni maanaam ñenn ñi sax njort nañ ñi Idrissa Seck ci complot bi la bokk Idrissa kàddoom yooye ñenn ñi dafa jàpp ne maanaam dafa far ba tey ci biir journal bi ñu fekk fa Alioune Badara ne mooy médiateur de la République yëkkati na ay kàddu daal di wax ak njiitu réew mi di ngir njiitu réew mi wax ak askanu Alioune Badara Cissé nee na Macky Sall déglul askan wi waaye nag war ngaa dégg tamit ñi nga xam na ñooy askan wi ndaw ñi nga xam ne ñoo wàcc ci mbedd mi mooy ay ndaw yoo xam ne dem nañu ba amatuñu yaakaar ay ndaw yoo xam ne amatuñu xemmeef téefa dund ci réew mi ay ndaw yoo xam ne jël nañu gaal gi ngir génn réew mi ay ndaw yoo xam ne amatuñu yaakaar ay ndaw yoo xam ne xamatuñu fan la ñu jëm jamono ji nag nekk fi di menacer ak di terroriser ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi loolee munta jàll di leen teg fitna ba tey ci biir journal bi Karim Wade doomu Abdoulaye Wade moom tim nee na mbooleem li nga xam ne xew na ci réew mi lépp Sall te bu ñu waxante dëgg Macky Sall jamono ji yénatul maanaam muy jiite réew mi yéen a kaay gi du l'Observateur nee na garde à vue bi nga xam ne defoon nañu ko Ousmane Sonko ak ñaari garde corps am ak caméra maanaam daat nañu koy teggi waaye nag teewul Ousmane Sonko ma nga section de recherche ndax dafa am ab mandat de mener tey ji lay janoo ak juge Samba Sall doyen des juges yéen a kaay gi di Vox Populi xëy dañu xibaar naan ñu lundi de tous les dangers tey ji saltina ji lenn lu nekk mën naa xeew li xeew ba tey ci biir journal bi mooy ay kàddu yoo xam ne am na benn waay bu veut la paix prépare la guerre en tout mooy armée bi jamono ji yokku nañu ko renforcer nañ ko fi nga xam ne mooy Ndakaaro xaw ma nag lan la ñuy waajal yéen a kaay gi de la Tribune nee na lépp nag jege na jamono ji daal réew mu kaaw réew mu dugg ci giraawaali réew mu dugg ci musiba Sénégal jege na ko yéen a gi wax na tamit ñi nga xam ne ñooy émissaire u xalif généraux yi ak waxtaan wi nga xam ne séq nañu ko ak njiitu di président Macky Sall yéen a na kàddu yi nga xam ne Idrissa Seck yëkkati ko bëri na ñoo xamante ne yàkk nañu ko musiba ak mbelengaan ku ci mel ni Malick Gakou ak Mamadou Lamine Diallo ndax ñoom nee nañu Idrissa Seck amul lenn loo xam ne war na koo wax ba mu wooree ñi nga xam ne askan wi dem ànd jë ak mburoog soow journal bi de la nee na ñi nga xam ne ñooy yi ak ñi nga xam ne ñooy ci lu jëm ci wàllum sport ak ñi nga xam ne kilifa diine yi ñoom ñëpp sàkku nañ ci Macky Sall mbir mi mu daal koy woyofal maanaam daal di ciy deltu ginnaaw yéen a kaay gi di réew mi xëy duñu xibaar naan ñu problème ya neexul moomee tekki na ndombal tànkam ba pare daw làqatu fi nga xam ne mooy Touba moom capitaine bi nee na nag li nga xam ne mooy procès verbal bi ba mu fiyute maanaam génn ci mbedd mi dafa gis ne am na nit ñoo xam ne ñoo ngi koy topp ba mu demee ba xam ne waa direction nationale du renseignement la ci la nag wax ñi nga xam ne ñooy ay kilifaam ngir nag ñu daal di wattu lu jëm ci wàllum kaaraangeema bi ñu ko faale wut ci la tekki ndombal tànkam moom Omar Touré daal di sàkku procureur Serigne Bassirou Gueye ak ministre de l'intérieur Félix Antoine Diome ñu tekki seen ndombal tànk yéen a kaay gi de l'observateur boo moytuwulee ci ab contrôle judiciaire la jëm maanaam bàyyi ko mu ñibbi këram yéenekaay gi di la Soleil nee na yi nga xam ne moo am ci réew mi tax na lu jëm ci wàllum njàng meeg njàngale mi maanaam ñu daal di koy ajandi ba fukki fan ak ci weeru mars yéenekaay gi di la Quotidien nee na nag jigéen ñi nga xamante ni ñoo ñoom ñoo ngi woote ak dal yéenekaay gi di réew mi Quotidien ak Stades xëy diñu xibaar naan ñu match bi nga xam ne moo doon dox diggante Fulham ak Liverpool Fulham gën naa ndax benn bal ci dara la ko dugal yéenekaay gi ma ngi si